merci si eh, question bi eh, question bi pour tontu si eh, su nit ñi di wax ne ko est-ce que dans trois ans est-ce que c'est suffisant pour euh, du noonu la mhm. pour euh, appliquer ce programme la Euh, je pense que yëngu-yëngu bi am ci Dakar ci temps yi passé ni ñu ko gisee. Mhm. avec les jeunes mécontents. Mm -hmm. les casses et autres. Je pense que l'État devait réagir. Et personne ne sait qu'est-ce que l'État allait faire. Personne ne le sait. affaire bi kaas bi am na nit ñi ñëw nañu ñaxtu nañu toj nañu sàcc nañu yàq nañu l'État a gardé son sang-froid réfléchir xool qu'est-ce qu'il doit faire et ça euh, ñun euh, les chefs d'entreprise ou les Sénégalais tout court on ne peut que se féliciter de la réaction de l'État c'est-à-dire tout de suite euh, génn benn bouquet moi j'appelle ça un bouquet 450 milliards c'est pas du lu tuuti kooku ku ko xeeb c'est que parce que da nga peut-être da nga xamul luy xaalis 450 milliards c'est énorme euh, 450 milliards là où je ne suis peut-être pas d'accord peut-être que c'est pas suffisant doyul peut-être que mënoon nañ ko def avant tout ça aussi c'est une discussion on peut le dire on peut le faire Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que spontanément, l'État qui réfléchit pour trouver une solution tout de suite, peut-être que la solution la plus rapide, c'est ça, 450 milliards tout de suite, euh, euh, euh, euh un programme pour, les jeunes. Et ça, on va y arriver. Et le programme, comment il faut le créer Parce que milliards, il faut pas le créer n'importe comment. C'est-à-dire que Dieu le passer, passer, comme Non, ce n'est pas ça. Mais la volonté de l'État à mettre 450 milliards, moi personnellement, tangent, je le et je le salue aussi quelque part aussi damay ñaaw ñaawlu aussi ñi nga xam ne xëy na di ci xëpp suuf. mais pourquoi xëpp suuf. Euh, moi je pense que su fekkee état jël na euh, une mesure pareille soit de deux choses soit nga ne doyut nga ne l'état nga yokk parce que en fait c'est un bu nga xam ne ñëpp si biir la ñu nekk muy opposition muy pouvoir. mais euh, alors peut-être pourquoi ces interrogations pourquoi peut-être ñuy wax euh, euh, ci ci ci trois ans wala entre autres euh, man du ma ko sax woowee xëpp suuf mais peut-être pourquoi ñu ci ñu ciy débat c'est parce que il y a eu quand même énormément d'argent qui ont été injectés justement pour régler problème mu xëyu ndaw yi. oui beaucoup d'argent ont été injectés mais mal injectés. mu ngi wax waxu 650 000. oui mais 650 milliards. oui mais mal injectés parce que en fait je l'ai dit dans une émission de télévision quand vous prenez de l'argent, vous le donnez à un jeune qui n'a pas de formation, qui ne sait pas quoi faire, vous l'appelez parce que tout simplement, et vous êtes pressé de le calmer. Et vous lui donnez de l'argent par le biais de l'ADER ou FONGIP ou FONSIP, peu, peu importe. Mais quand vous donnez cet argent à ce jeune, il n'a pas de profession, il n'a pas de métier. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse D'ailleurs, soit Moudem Dougou Commerce, te commerce c'est pas forcément que dina am résultat c'est pas forcément que dana jaay lu am maanaam te il doit vivre et il doit puiser dans cet argent là pour vivre et quand vous puisez dans le capital pour vivre vous savez bu yàggee capital bi dafay disparaître et moi je pense que euh, c'est pour ça qu'on a dit que l'État doit revoir un peu sa copie par rapport un peu à, aux problématiques de de la jeunesse C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer un jeune qui n'a pas de formation. Et la formation, ce n'est l'école. La formation, c'est dans le tas, dans les entreprises. Quand vous allez en France, les, les élèves qui sont au lycée ou bien au collège ou autre, mais dañu am benn programme spécifique ñu nga xamee ne dañ leen di jox tant d'emploi moi j'ai des enfants qui sont en France dañ leen di jox tant tant de sociétés ñu choisir par exemple matière bi leen ci neex société bi leen neex et quelque temps dañ leen di yóbbu en entreprise ñuy dem di jàngi foofu di jàngi métier pour pour pour pour jàng euh, euh, euh, xam métier bi naka lay fonctionner nga xam ne kooku ëllëg bu génnee déjà dina am benn notion parce que il sait déjà où aller. alors président. oui président Tandian 450 milliards boo gisee nit ñi am ci problème mooy nan ne wax na ko léegi li ko jiitu amoon na xaalis bi nga xam ci dugal nañu ko ci xëy ndaw ñi mais li ñu wax mooy est-ce que waruñu woon a évaluer. xool tolluwaayu xaalis bi nga xam ne génne woon nañu ko auparavant pour dugal ko ci xëy ndaw ñi balaa ñuy génneewaat yeneen quatre cent cinquante milliards di wax euh, di waxati euh, mbirum emploi des jeunes problème bi nit ñu am tey jii mooy xaalis bi fi muy fi mu war a dem du fa dem fi mu war a yegg du fa yegg d'ailleurs la preuve mooy li ñu jotagum dund ci conseil présidentiel yi ñuy wax ne xaalis génne nañu ko euh, pour am ñu ko ñoo ñu ne jotuñu ci alors quatre cent cinquante milliards baax na waaye est-ce que jotul woon xaalis bi nga xam ne dugal nañu ko ba noppi ñu évaluer ko xool fan la toll. waaw je suis tout à fait d' euh, xam nga lépp loo xam ne boo ko defee da nga koy saytu la nga def ba résultat la indi ak ba résultat la la joxe c' est vrai que li ñu jot te dépensé war nañ ko saytu xool ko xoolaat ko mais cette fois ci je pense qu'il y avait un problème d'urgent le problème urgent moom mooy on a vu un peu la réaction de tous ces jeunes la pendant un moment et ça faisait peur parce que en fait n'importe quel gouvernement qui serait en face un peu de de ce problème mais déjà dina si am benn jàngat bu nga xamee ne mais xëy na peut-être que il faut trouver une réaction tout suite. état boobu mënu woon andi solution laata problème. mais attends la solution ils auraient pu le faire. s'il y pas eu s'il y avait pas eu cet empressement ces émeutes et tout ça xëy na peut-être que. est-ce que waroon nañu xaar émeute pour pour andi laa bëgg a parce que aujourd'hui boolu mairie ñoo fees xëy na ba mu émeute yooyu am est-ce que état waroon na seetaan ci wàllu xëy ndaw yi aujourd'hui bi mu ne def na ci ay xaalis bu bari euh, situation bi di toll fii. mën naa am état def na ko. mais mun naa am état def na ko mais dafa doyul. dafa doyul et nous le disons dafa doyul ak ni ñu koy defee aussi xëy na peut-être parce que moi je dis encore une fois aujourd'hui gis nga gis nga suñu bëggee euh, euh, suñu bëggee hmm, kii xëy ndaw yu dox. il faut impérativement. ñu lëkkaloo avec les entreprises nationales. impérativement parce que mënoo marginaliser les entreprises nationales ba pare maintenant nga ne xëy xëy xëy ndaw yi. da nga koy booster mënuloo ko booster parce que l' état ne n' pas parce que l' état n'a pas une vocation pour embaucher. mais entreprise yi ñoom ñooy embaucher entreprise boo ko gungewul boo ko dimbawul boo ko jàppalewul mais pour mu embaucher day day jafe. parce que c'est ça la réalité. et a vu aujourd'hui des des entreprises moi je donne par le cas du tey pendant vingt ans eh bien il a créé une structure bu nga xamee ne pour permettre aux, aux jeunes de trouver leur premier emploi il y a eu énormément de jeunes qui ont trouvé leur premier emploi sur ça mais moi aujourd'hui je pose la question qu'est-ce que le MEDES obtient de l'État pour pour booster un peu lu muy def ça fait ans qu'il fait ça tout dernièrement ils l'ont fait il y a il y a il y a quelques il y a quelques jours et donc moi je dis que si les entreprises Euh, ne sont pas en phase avec l' état. si euh, su fekkee euh, excusez-moi su fekkee entreprise yi nekkuñu en phase avec l' état mais c' est impossible de dire que dañuy régler le problématique de l' emploi c' impossible. parce que il ya am nañu ay ay ay nit yi nga xamee ne aujourd'hui boo leen dimbale boo leen jàppale ma je mën naa si citer ñu bari ce n'est que déjà fii ñu nekk nii rek le groupe le group des médias. groupe des médias y a y a man xam naa si dara parce que xam naa patron. depuis depuis des années ñu ngi ànd mais il y a dix ans c'était embryonnaire c'était rien du mais aujourd'hui gis nga lu mu yore ci ay nit je pense que ku mel noonu dañ ko war a jàppale. d'accord donc il faut euh, entre autres un secteur ni Youssou euh, Ndour dañ ko war a jàppale parce que Youssou Ndour maanaam moom ñoo cheminé dans un organe de presse qui Le Matin à l'époque du woon dara et aujourd'hui on a vu l'empire qu'ils ont créé c'est des gens xam ne dañ leen war a jàppale. alors président Babacar parce que tant que tant que l'État n'a pas compris euh, cette voie-là mais day jafe du dem. très bien donc en, en quelque sorte euh, c'était pas la bonne option mais dinañ dañuy ñëwaat ci yow dañuy dem juste ci euh, kilifa.